Euh, ferry service bi mooy euh, lu jege juróomi weer wala sax juróomi weer ak ay bés yoo xam ne euh, am na benn ferry képp moo nekk di daw muy muy ferry bi Kunta Kinte Kanilaay bi mu demee garage ba léegi di maintenance ba léegi xamaguñ fu mu toll ñu gis ne léeg-léeg clients yi bu ñu demee toog fi nga xam ne mooy di xaar ferry bi waxtu yi ñu waroon a xaar ngir jàll Euh, bu ñu waroon a jël exemple 30 minutes pour xaar ferry mu ñëw léegi dina leen jël one hour ndax benn ferry mooy moom moom mooy daw ci wàllu économie ak ci yu bëri ñu gis ne yow sax daf nga si beneen taxaw seetlu boo xam ne ci sa xëtu Facebook bi muy sa page bi bind nga si am yu ci bëri euh, nan ngay jàngatee ci wàllu koom bi nga xam ne euh, ñu wax ko ñàkk koo wax yow boo defee sa wàllu investigation sa bopp rek wala observation rek di nga xam ne koom mi ngi mi ngi mi ñi ngi ci ñàkk koom bu bu bëree bëri bëri ndax boo xoolee ñu ci bëri léegi ñu ngi ñi ngi wëri ndax xam nañ ni bu ñëwee fële féeri bi bu la xasee raw di nga xaaraat lu lu lu ëpp li nga waroon xaar bu fekkee ñaari féeri yëpp ñoo waroon daw euh, ndax jàpp nga yow euh, kan ngay kan ngay blame ndax ci biir bi gis nañ yaa ngay blame euh, féeri service bi si seen boobu mooy management bi ak ministre of transport and works soo ban jàngat ngay defaat ci loolu. pour nit yi lu gaay di dundee. bu demee ba seer. ferry service am nañ si seen loxo tey ay légumes yi ak bagages yi yi nga xamante ne bagages dundeekaay yu jógee Sénégal wala yu jógee yeneen dëkk di jaar Sénégal war a ñëw jaar si ferry bi ferry bi amul ñu wiire essence bu si gaay lakka dinañ jël price bu noonu teg ko si kaw bagages yooyu noonu mu gën a seeral dundal te dafa méegut sens biir Gambia ba mu daj benn ferry moo nekk di dox kunta kinte bu ñu am 2019 ñaata ñoon la fi yàqu kandilaay bii ni ñaata at dafa fi nekk te poste bii ni ñaata xaalis moo su dee dugga Gambia government ñaata xaalis moo su dee dugga waaye ñaari at ñetti at bu nekk ñu changé seen moto jënd ay moto yu ees millions yi dugg si nga am sa ñeneen sax ñu am naka alternative yaa ngi dugg sa oto nga jàll te ñooñu ministre yi kuy dem senegal do jaar ci ferry bi da kufi dugg ci plane ku fi ku fi tardé nga wax ferry bi mu xaar la waaw ku fi tardé nga ne ferry bi na xaar parce que ferry mu nekk di dox waaye askan bi kufi ku fi tardé ferry bi dem ku fi feebar gis nañ ko fii nii am na ku fi ba ci ferry because sa ferry bi. nit ñi gaañu ñeneen ñàkk seen business yi nga andi féer yi mu dem ba si biir ndox bi nit ñi ba mu demee ba costé mu paan am ñu fa nekk almost 24 hours ñu ngi si biir féer bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di doxal féer bi ñu dem tëdd seen biir néeg taal seen AC bi di nelaw nit ñi toog foofu noonu fanaan fa du lekk du ndox amuñu ko soo lan moo tax Gambia. ba mu daj ak alal bi nga xamante ne moom nekk di dugg si réew bi nii yëpp nga ñam jënd hundred luxurious OIC vehicles pro programme balaa muy jeex foo dem left right nga gis OIC cars yaa ngi koy dawal nu mu la neexee waaye yow ñi nga xamante ne ñooñu nga fa nekkal ñooñu mënuñoo am good reliable secure ferry transportation benn ferry biir gàmba yi ba mu dal ba mu daj benn féeri loolu mu nekk di jàngal nit ñi mooy ñu fa nekk faalewuñu xalaatuñu nit ñi seen ñoo nekku si ku si dee seen ñoo nekku si parce que loi bi loolu la wax de luwaa féeri bi loolu la wax ku si dee nga ñàkk si sa bakken wala nga ñàkk si sa ay bagage you cannot hold the Gambia ferry service liable waaye foog naa ne nit ñi dañ commencé dañ war a commencé di taleñ daan in court ñu leen di yóbbu ku si ñàkkas ku si ku si mista flight seen ñoo nekku si waaye ñoo ñëpp ñoom ñëpp ku si dem Sénégal nga def sa paat bu rafet dugga si sa plane dem lan moo tax question bi mooy lan moo tax Gambia ba mu daj mënuñoo am féer di depuis depuis kañ problème yi ñun ba nu ne ndaw ñu nga man every time maa ngi wax si affaire yi féeri bii nii ñu man ama benn mbokk bu nekk Ndakatura Baara man du may du may dem baal waaye dafa meegut sens ñi nga xamante ne ñu ngay jóge school man ba ma doon dem Gambey xaay dama am classe mais ñuy jógee baara ñuy ji jógee esew ngay dugg a gaal ku feebar amuloo benn air ambulance amuloo any even si ambulance si ambulance bi nga xamante ne ni nga jëndee sa luxurious véhicule boobu noonu xaalis boobu noonu mu nga ko jëndee sa si sax ambulance bés benn moto benn moto xaalis boobu noonu bi nga si mun nga si am sa si ambulance waaye am na moto yooyu su bari ñu ngi ko teg nag gaay dem suñu demee ba oxygène moto yu gaay teg 100 cas la almost 20 to 30 cas joxe nañ ko yu su des na ko gaay dem oxygène xaalis bu si gaay am mu neen am féeri bu ees nit ñi naka la gaay di xalaate ñii naka la gaay di xalaate soo léegi yow da nga blame uh, di management waaye ku si munti nekk sa loxo da you are to be mudon the the the president mudon the ministry of transportation mudon Gambia Post Authority them all the way down to Gambia Ferry Service ñeent ñii they should be blamed April bañ jugee di make noise balaa xam limo limo moo lii moo problème Gambia dañoo gis problème kon noo ko nga ne let's not focus on the branches the root cause you do not address the root cause ba commencé bi affaire bi commencé di génn nit ñi di commencé di wax ngeen commencé di arrest nit ñi di wax di def ay press conference di ñaan nit ñi di dem ci alkaalo yi di ñaan nit ñi te man nag alkaalo yi nag foofu leen mere yow gis nga askan bi sa nit ñi dee si yàgg na si ñu oola ñu waxtaane da ngeen nañ ko bàyyee boor ba tey la leen waxoon ben tey juróomi weer mënuñoo fix loolu te ñoom ku su nekk ku sa moto bi yàqu du jël juróomi weer benn ñaari fan ñu yóbbu ko sa mécanique ñu defar ko lan moo tax askan bi nag mënuñoo am loolu lan moo tax Gambia boo jugee Sénégal di ñëw sa fausse headache bi nga dee xalaat mooy ferry bi boo jógee Gambie di dem sa fausse xalaat moo nekk ferry bi te loolu noonu suñu économie courant mu fi moom xam na yëfi économie problème bi mooy Gambia ferry service boo xoolee before ba gaa yi doon am two three ferry seen revenue bu gaa yi dee generate compared to now bi nga gis trend bi is going down yaa ngi understand so pour pour hmm. amuñu ay njit ñu serious amuñu njit ñu yek nit ñi amuñu njit ñi nga xamantene problème yi nit ñi dañ ko def seen problème dina la wax am ñu jugé bara dañoo ñëw ba fii ni costoro di jaay ñi di jugé bara ñëw ba banjul wala serekunda di jaay te legi di nga gis ku tok 5 hours 5 hours individual bala nga mëna jall ferry bi amulo moto bo am moto ni def mënuloo bridge soo mënutee bridge jox ñu ferry it's not rocket science it's not rocket science <laughs> pour nga andi ferry it is not right and it's taken them forever so ferry bii nii nag naka tudda door nañ di si waxaat dinañ si gannaaw wax te dinañ jugaat dañ fi jógoon ngay arrest ñu dinañ jugaat dinañ commencé wax bi